jërë ngeen jëf tappale yi am ci yi ci réew mi nee na fàng ne góomub jë bi l'observateur ARMP mu di autorité de régulation des marchés publics siiwal na démb rapport bi mu def te mu tënku ci anam yi ñuy doxalee marché public yi ci réew mi atum 2016 rapport ba feeñal na ni fii ci Sénégal am nay kilifa yu def ay jéego yu am solo jëm ci yorin wu sell yorin wu baax waaye am na ci ñoo xam ne gere gere yi ñu nekkee woon ci marché public yi yëf ya dafa gën a yokk bokk na ci ONAS di office national assainissement du Sénégal ak dépassement budgétaire justice am na ay milliards yu bari yu rapport bi ne nduxum nañ ko fa ci restauration détenus yi mu di ñu caabi féeti ginnaaw ak seenug dund ministère des sports ak ministère de l'énergie et développement des énergies renouvelables ñoom it kenn demul ñu des Sud Quotidien nañu ñi rapportu ARMP bi sajji xef ndax doxalinu bon kudd la aéroport international Blaise Diagne maître Sidiki Kaba ak Abdoulaye Bibi Baldé Abdoulaye Mbodj ma jiite aéroport bu Diass Sud Quotidien nañu na mu jugeeg na mu jugtee dara ca baaxul ca kudd Cheikh Omar Anne ma ngay wéyal gundaandaat ga mu fa nekkee kër maître Sidiki Kaba mu di ministère de la justice jamono jëma koy jiite ay signature yu baaxul la ñu fa nemmeeku Abdoulaye Bibi Baldé moom ay activité lu mu ci masaan def day yokk facture Le Quotidien nañu gouvernance sobre et vertueuse gi Macky Sall ko nguuram doon wax ba ñuy soog a ñëw loolee wuute na lool ak li ci rapport 2016 bu ARMP bi ne la mu feeñal moo di mooy ca poorum Ndakaaru jamonoy Cheikh Kanté ci ministère gouvernance locale agence de bâtiments et édifices publics ak it ci ministère des ay nju njaaja ki gere gere yu dul jeex ñu am ca marché public ya libération nañu ay ponkali maami mbóot feeñ ci passation marché public yi ne marché bi jëm ci yàkkali stade Amadou Barry bu Guédiawaye bari na lu ci am lu kenn waxul kër soosé Diop Dionitz mu di agence bâtiment ak édifice public ñoo ngi ko ciy tudd Dakar dem dikk noonu APIX noonu SNHLM noonu maire bu Pikine noonu Israël noonu les éco nañu gere-gere yi dafa yokk ci réew mi loolee la rapport ARMP bi wax ak fanweeri nit ak ñaar yoo xam ne feeñal na seen doxalin wu bon ci mbiri marché public 32 mauvais élèves Cheikh Omar Anne Diène Farba Sarr maître Moussa Diop ak ministre Matar Ba ministre Mbagnick Ndiaye it ma nga ca ak nijaay Macky ji di Abdoulaye Timbo rapport ba tudd na leen kii di Matar Ba ministre des sports Walfadjri nañu moom dafa mel ne ay njuuj njaaj ak i gere gere mooy sport favori am APIX ak ni mu doxalee ci mbiri train express régional bi mu di teer Walf nee nañu kenn xamul lu muy nurool las nañu ARMP sulli na Mbóoti Diouf Sarr Abdoulaye Daouda Diallo ak Matar Ba Macky muy selfie bay ree du ay caaxaan photo baa yéenekaay bi nañu wax na leen fa ñoom jigéen lu daw yaram lu neex ci xol ndax nee na leen yéen jigéen ñi ñun dañu leen a bëgg la yéenekaay nañu yemu ca ne da caa teg yàq leen ba ñu yàq ya xeet ak i neexal président Macky Sall jox na leen i financement ñoom jigéen ñi ak i matériel yu ñu mën a liggéeyee Moustapha Cissé Lo nee na da koo tiital moom Macky Sall mi ngi ko waxee ci mu njëkku la cloche El Pistolero Moustapha Cissé Lo la cloche nañu ginnaaw bi mu dalee ci kaw Benno bu nuppi yàq leen xame da caa teg jàppale Youssou Ndour ak kàddu yu mu fi yëkkati bu yàggul Moustapha Cissé nañu Youssou Ndour du n'importe n'importe qui ci réew mi du n'importe qui ci président Macky waxam joojee lu jara xel la ndax li Youssou Ndour def ba Macky falu doon président bari nañu ko jege moom Macky Sall te defuñu ko Youssou Ndour def na ci dooleem def ci alalem def ci jumtuwaayam ngir Macky Sall mën a falu nañu football ji Serigne Modou Karambo ci défenseur central bu équipe nationale bu Sénégal moom la ñu record xëy central jamono ji ma nga ca Barcelone ga ca Espagne ngir faj fa omam bi ko dëkkee sonal li accélérer la cadence journal record nañu moo di bañ ku ko nittili Russie ci xët mu njëkku stade yéenekaay karambuj mel ne ku fay tontu ndax mi ngi naan li ñu may waxal yëpp dara ci amul li am ci xët mu njëkku stade yéenekaay yamu rek ci karambuj ak i mbiram am na beneen défenseur central lu Sénégal bu fa nekk mu di Papy Djilé Bodji ma nga fay wax li ko entraîneur bi Aliou Cissé wax ci l'Observateur ba tey moom Djilé Bodji nañu fa li Aliou Cissé di xaar ci man moo di ma doon royukaay maanaam exemplaire triple S di doomi Passe ñoo ngi bëri seen combat te arbitre bi siffleegul ubbi l'observateur ku ci nekk ci ñoom yaa ngay tuumaal sa morom doore ko triple S doomi Double Less mu di Balla gay 2 mi ne Gris Bordeaux tuxkatu yàmba la li ko Gris Bordeaux tontu moo di yow dopage la sonal sunu lamb nañu jàmm jeex na tàng na jër ci diggante le tigre de Fass ak le lion de Guédiawaye mu di Balla Gaye 2 ak Gris Bordeaux giri nañu ci xët mu njëkk sunu lamb keroog ci mbuur Balla Gaye ba muy ñëw loolee ñu naan geen te jigéen ñi di ko takk moom la Balla Gaye takkoon ngir bañ biiram feeñ waaye bi mu taxawee nga gis kook ni mu funkee lexeeg ni mu rëyeeg xotti taat yi ni mu rëyee ci ngay xamee ne Balla Gaye du dara ab tirisekat la Balla Gaye ne ko yow naankatu fonde nga naan fonde moo la yóbbu kër Moustapha Gueye li ci Balla Gaye tekk sunu lamb bindu ko man ñemew ma ko wax ci rajo mbaa télé